أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعذبوا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 wa ahli tariqatihi alfaa'izina arraabihiina amma baadu ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala bi ñu dëppalee ci guddi tey jii nga xam ne mooy fukkeelu guddi ak ñaar ci weeru muharram di da nekk altine ci atum junni ak ñeent téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñeent ci ginnaaw gàddaay yu yenente bi sallallahu alayhi wa ci ñu war a tàmbali inchaa allahu taala ci jàng saxeexu imaam al buxaari rahimahullah nga xam ne moom mooy téere bi gën a wér ci téere yi sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne boroom xam-xam yi yépp rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne amul ginnaaw alquran téere boo xamante ne téere bu mel ni saxeexu imaamul buxaari la ولكم نكو إمام السيوطي رحمه الله وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم مروي, مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما وحججه خامتنا دا فاي واخ نكون غيناو القران الكريم امول بن تي تيري تيري بو خامتني مو مو غنا وير نياري تيري يوي مو تيري صحيح مو تيري امام البخاري اك تيري امام مسلم عليهما رحمات ورضوان المنعم kon ñu ngi jàng téere bi insha allahu taala te muy aljaamiu saxiix almusnad min umuri rasulillahi sallallahu alayhi wa wa sunanihi wa ayaamih man jaam doyadi bi nga xam ne man bu bu suufee ci kanamu borom subhaanahu wa taala di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ñun maanaam suñu jaam suñu jaam bi nekk njàng moo xamante ne dañ ci jéggi daf ñuy yegg yegg yegg ci ñu gën a jege borom borom bi subhanahu wa taala mu nekk loo xamante ne day nekk xaalisan li wajhihi ba pare mu nekk loo xamante ne taabudan lillahi taala lay doon ngir dañ ko koy jaamoo kese mu wa taqarruban ilayhi mu nekk loo xamante ne borom bi subhanahu wa taala daf ciy def barke nekk loo xamante ne daf ñuy jariñ jariñ xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jàng kon téere bi nga xamante ne comme ni ko borom xam-xam yi di dafa rahmatullahi alayhim maanaam comme li imam as-Suyuti wax rahimahullahu taala te mu jële ko ci lu dul benn du ñaar ci ay xam-xam rahimahumullah comme ni nga xam ne noonu la siiwee ci al imam abdullah ibn al mubarak al marwazi ak imaamu malik ak imam ashafii ak ñeneen rahmatullahi ala aljami ñuy wax naan al isnaadu min ad diin tàllal yi daal ci diine ji la bokk ñu ngi jaamu yàlla ci jël li nga xam ne moom mooy di jàng suñu téere yi xadis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dundalaat sunna yeneen ngir dundal sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te di ko jaaree ci jàng gi nga xamante ne moom lañ koy jàng ak càllale yoo xam a muhammadul mustapha mbuub al muhammad tijaani yi mooy wax ne xaddasanaa a tijaani wa ahmad darwish ñoom ñaar ñoom ñoo jëlee ci asayid abdullah ibnu muhammad ibnu siddiq al xumaari ñoom ñu jëlee ci Umar ibn Hamdan ak Abdul Muhammad Abdul Hayy al-Kattani ñoom ñu jëlee ci Abdul Jalil ibn Abdul Karim Barrada mu jëlee ci Muhammad Abid as-Sindi moom mu jëlee ci Muhammad ibn Alauddin al-Mizjaji moom mu jëlee ci al-Cheikh Ibrahim ibn Hasan al-Kurdi al-Kawrani mu jëlee ci al-Abdu Salih mooy jaamu yàlla bu sell boobu nga xam ne dafa guddoon fan muy Abdullah ibn Mula Sa'dullahi al-Lahuti moom mu jëlee ci al-Qutb Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad an-Nahrawani moom mu jëlee ci an-Nur abul fath moom mu jëlee ci baba yusuf alharawi mu jëlee ci góor ki gudd fan kooku nga xam ne moom la ñuy wax muhammad ibnu shadabaht moom mu jëlee ci yaxya ibnu ammar ibnu muqbil ibnu shahan moom mu jëlee ci ki nga xamante ne moom moo solo hadis moom moo solo téere bi ci moom mooy muhammad ibnu yusuf ibnu matarak al firabri moom mu jëlee ci al imam al hafiz amirul muminina muhammad ibnu ismail al bukhari radiallahu taala anhum ajmain loolu moom mooy kon càllale bu njëkk bi nga xamante ne li mu ràññeekoo mooy ne waa ahlu tasawufi dañuy faral di solowee xadi euh, saxeexu imam al buxaari ci bii càllale waaye li nga xamante ne moom la ñu war a leeral fii moom mooy ne li ëpp ci borom xam-xam yi maanaam ci waa ahlu tasawufi dañ koy jëlee dañ koy faral di solowee ci yoon bi nga xamante ne dafay jax di jaar ci muhammad bin saalih al alfula euh, euh, alfula alfulaani moom mi nga xamante ne daf koy jël ci muhammad ibn sinna waaye yoon woowu nga xamante ne dafay jaar ci allah ci uh, allahu ti al qutb an nahrawaani bi nga xamante ne moom lañ tudd léegi waaye yoon woowu du yoon wér lu tax yoon wu nag moom mooy Muhammad bu Saalih al Fulaani moom dafa nekk koo xamante ne dafa sos li nga xamante ne moom mooy li mu wax te rawatina ne Muhammad ibn Sinna moom nga xamante ne moom la wax tudd ko daanaka jox ko lu war a tolloog ñetti téeméeri at ak yu mel noonu te kenn xamu ko faas nii en tant que taalibe nii en tant que moom mu wax ne moom xam na ko te moom la taseel euh, màkk mu ijaazal ko ak wax ak yu mel noonu loolu amut te comme ni nga xamante ne lu dul benn du ñaar ci borom xam ni yi rahmatullah alayhim saxal nañ loolu ku mel ne al imam al xaafis ahmad ibnu muhammad ibnu siddiq al gumari euh, rahimahullah ni ki noonu ñeneen euh, wax nañ ko waaye ku mel ne sayid muhammad ibnu abdul hayy al kattaani moom ci faharasul faharis moom dafa dafa wéral ay waxam ndax jéem na ko layal ngir wax ne loolu la mu wax moom am na waaye ala kulli xaalin euh, gëstu yi nga xamante ne ñun moom lañ ci def gis li ñu gis ndaal moom mooy ne te li gën a dal suñu xel moom mooy ni càllale boobu daal wérul donte lu ëpp ci borom xam-xamu waa ca tasawuf yi dañuy jël càllale boobu di ko jëfandikoo di ko jëlee ci euh, di di ko soloowee xadis euh, saxiix imam al buxaari waaye nag li nga xamante ne moom mooy a leeral fii moom mooy ne fii nii ci yoon bi suñu diggante ak imam al-Bukhari fukki nit ak ñett ñoom ñoo fi nekk ci loo xamante ne maanaam fukki siècle la ak ñeent maanaam wala boog fukki siècle ak juróom maanaam nga gis ne kon loolu lu lu tumranke la te lu gàtt gàtt la alhamdulillah Euh, donte am na beneen yoon boo xamante ne maanaam yoon wu jege yoon woowu la nga xamante ne fukki nit ak ñett rek moo dox suñu diggante ak sa ak imam al buxaari rahimahullah te moom mooy yoon bi nga xamante ne moom lañ jëlee ci suñu sëriñ cheikhuna al imam salahuddin atijaani moom mu jëlee ko ci al cheikh muhammadul hafiz atijaani moom mu jëlee ko ci mu ki nga xam ne mooy borom xam-xam di muhaddisu euh, maghrib bi mooy seyd muhammad abdul xay al kattaani moom mu jëlee ko ci al allaamat abdul haadi ibnu al arabi al awaad moom mu jëlee ko ci al allaamat muhammad ibnu ali al sanusi moom mu jëlee ko ci borom fan wu gudd woowa di abdul aziz al xabashi moom mu jëlee ko ci al imam al xaafiz di ahmad ibnu ali ibnu xajar al asqalaani moom mu jëlee ko ci an najm abdurahim ibnu rizin al xumawi ak ibrahim ibnu ahmad at tanuuxi moom mu jëlee ko ci ahmad ibn talib alxajjar moom mu jëlee ko ci alxusayn alzabidi moom mu jëlee ko ci abul waqt abdul awal alsajzi alharawi imam abu abu abul waqt abdul awal alsajzi bi al awal alsajzi bi alharawi maanaam alharawi mi moom nag moom moo ko jëlee ci ñetti ci sëriñam yi ndax moom moo tax ñetti ñooñu ñoom ñoo soloo saxiixu imam al buxaari ci téere yi nga xamante ne moom la ñu am mboolem téere boo xamante ne gis nga ko ci kaw suuf tey te fekk ne dañu solo saxe imam al bukhari manam ci ñett ñi la jóge te mom moy abdullah ibn ahmad ibn ibnu as-sarhsi te mom moy nuskha ñun yi ñu yor nuskha yi yépp nusxa boobu la moy bu al bu humawiya bi as-sarhsi ak ibrahim ibn ahmad al mustamli ak abul haytham muhammad ibnu al makki al kush may hani ñoom ñett ñi ñoom ñooy ñett ñi nga xamante ne ñoom lañu am seen nusxa ci saxeexu imam al buxaari rahimahullah Euh, moom mu jëlee téere ci mu ñoom ñett ñoom ñëpp ñu jëlee ko ci abu abdullah muhammad ibn yusuf ibn matar al firabri euh, al firabri bi moom la ñu waxoon sànq tamit ne ci moom la ñu solowee sax imam al buxaari ngir ne moom dong maanaam imam al buxaari jàngale na téere bi maanaam lu tolloog 70 mille personnes jànge nañ ko ci moom waaye al firabri ci at bi mujj bi mu ko jàngalee ci la ko solowee ci moom te moom mooy ki nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala dafa def ne saxiix imam al buxaari ci ay loxoom la tasaaroowee ba tasaaroo ci goxi àdduna bi yëpp moom mu jëlee ko ci al imam al muazzam abu abdullah muhammad ibn ismail al buxaari radiyallahu taala anhu mu daal di wax ne kitaabu bada il waxi maanaam bismil mu ne bismillahi arrahmani irrahim maanaam bismillahi ci turu buur yàlla arrahmaani bay aju fees dee la ji yërmande arrahim mooy ki nga xamante ne moom mooy ki yaatu yërmande balaa ñuy yeggale loolu insha allahu taala ñu barkeellu ci maanaam càllale goo xamante ne mooy càllale gi ñu gis ne càllale maanaam bi nga xam ne jàpp nañ ni mooy bi gën a barkeelle ci kaw suuf te mooy càllale goo xamante ne dafa jaaree ci suñu sëriñ mooy cheikh na abul abbas ahmad ibnu mahamad atijaani radiallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi ni ki noonu jaare ci mbooloo ci ay euh, xulafaa um yi te bu bu maanaam ñooñu ñëpp ñu jëlee maanaam ñu ñu ñu jëlee xadis yi maanaam muy saxeex imam al buxaari ak mboolem xadiisu sunna yi ñu soloowee ko ci càllale yooye kon ñu jëlee ba tey ci suñu sëriñ samaaxatul imam cheikh salahuddin tijaani mu jëlee ci cheikh mouhamadul xaafis euh, tijaani moom mu jëlee ko ci cheikh mouhamad euh, as-sadiq ar-rayaahi at-tunisi mu jëlee ko ci a cheikh tayyib an-nayfari an-nayfar at-tunisi bu jëlee ko ci al allaamata cheikh al maahi ad daarfuuri nga xamante ne moom xalof xalifa bu mag di di taalibi direct cheikh na tijaani radiyallahu anhu moom mu jëlee ko ci cheikhuna al qutbul rabbaani wal aarif samdani maulana abul abbaas ahmad ibn muhammad atijaani radiyallahu taala anhu wa arda wa anna bi nga xamante tey maqaamatul qutbaaniyatul uzma boobu ci guddi gu mel ni ki guddi gu tey jii nii la jote woon ci ci arafa alhamdulillah ñu ngi sant borom bi wa taala nga xamante ne moom la maanaam moom la ñu tàmbalee suñu njàngu sa saxeex yenente bi maanaam sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina ci saxeexu imam al buxaari ci guddi gu mel ni guddi gi loolu dëppale gu màgg la goo xamante ne moom la ñu borom bi subhaanahu wa taala defal moom al euh, al qutbu rabbaani wal aarifu samdaani mumiddu kulli awliya rahmaani abul abul abbas ahmad ibnu muhammad atijaani radiyallahu taala anhu wa arda wa anna bi jële ko ci al cheikh mahmoud al kurdi al iraqi ممجلكو تي شيخ الاسلام الشيخ محمد ابن سالم الحفني المصري ممجلكو تي الشيخ محمد محمد عبد الله السلجماسي ممجلكو تي شيخ الاسلام الشيخ عبد الله ابن سالم البصري المكي ممجلكو تي محمد ابن الشيخ علاء الدين البابولي المصري ممجلكو الشيخ ابو ابو النجار سالم ابن محمد السنهودي ممجلكو تي خاتم الحفاظ النجم محمد ابن احمد ابن علي الغيطي ممجلكو تي شيخ الاسلام الشيخ ابو يحيى زكريا الانصاري زكريا بن محمد الانصاري مومو جيرو امر امر المؤمنين في الحديث الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني المصري رضي الله تعالى عنهم مانام تي تيالال ليغا خامتاني موم لنجو سولي وون سانك تي الامام الحافظ رحمه الله تي موم موي بيغا خامتاني موم مو تي الحموي التنوخي مو تي الحجار مو تي الزبيدي مو جاري كو تي السجزي الهروي مو تي si ak euh, maanaam mu jaar ci assaraxsi ak al mustamli ak al kushmayhani ñoom ñi ñu jële ko ci euh, abu maanaam ci abu abdullah muhammad ibn yusuf al firabri moom mu jële ko ci al imam al xaafiz euh, amirul muminina muhammad ibn ismail al buxaari kon mu wax ci càllage googu ñu ne bismillahi mu ne bismillahi kon ci turu yàlla arrahman bay aju fees dellu ji yërmande arrahimi bay ki nga xam ne moom mooy aju yaatu gi yërmande mu ne euh, ba ba baabu kay fa maanaam kitaabu bad il waxyi maanaam kitaabu téerig nga xamante ne moom mooy euh, waxyu bi maanaam ndax wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo ta maanaam daf koo tàmbalee euh, fii bunt bi maanaam mooy téere bi ndax dafa jël téere bi def ko ay <coughs> maanaam mu nekk ay euh, kitaab yu wuute euh, kitaab bi nga xamante ne euh, moom moo ci moo ci moo ci jiitu maanaam muy kat kat moom mooy kitaabu badul wahyi maanaam téeréb li nga xamante ne moom mooy liy tàmbali wax wahyi bi mu daal di koy jeexalee muy quatre-vingt-dix-huitième téere muy quatre-vingt-dix-huit te chiffre la tamit bu significatif ndax quatre-vingt-dix-huit moom mooy al mahmud moom mooy allahu waahidu ahad te moom mooy zaman maanaam nga gis ne kon téere bi insha allahu taala maanaam loolu muy lu significatif euh, te kitaabu tawxid la ko jeexal muy wéet borom bi subhaanahu wa taala maanaam moom la ko jeexal maanaam c'est comme si daf lay junj la wax yu bi moom mooy yoon bi nga xamante ne moom ngay jaare ngir dem ci borom bi subhaanahu wa taala waaye boo demee ba ca jombartal ga ci sa maanaam fa nga xamante ne foofu nga yegg moom mooy sa tawxid day sell day wér te loolu moom mooy ko te dafa dëppoo muy 98e bi te mooy dafa dëppoo ak allahu waaxadu ahad manam lolu yep manam dafa bok ci borom bi subhaanahu wa taala li nga xamantene mom moy deppele gu mag gi nga xamantene mom la deppele mom la deppele al imam al bukhari rahimahullah mune babu mune mune babu mu buntu kayfa ana naka kana la nekke won badul wahyi waxyi tàmbaleeg wahyi bi ila rasulillahi dem ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa qawlullahi ak waxu buur yàlla bi mom jalla dhikru mu ne inna awxaynaa ilayka kama awxaynaa ila nuuxin wannabiyina min baadi imaam albuxaari rahimahullah dafay def saa yooyu tàmbale maanaam suy ubbi benn Dafai wahne a ne ah buntuk nangam nga xam ne maanaam léeg-léeg mu ne buntuk nangam ak waxu yàlla sàngam maanaam nga gis ne bi ak xadis yi yooyu yëpp day wane ni maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu koo tàqale ak alquran maanaam moom mooy mu tàmbalee kon tàmbale waxyu bi ak li nga xamante ne moom mooy waxu borom bi subhaanahu wa maanaam fii dafay wax ne daanaka li muy lépp lu mu fi wax day leeral waxu gii nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ñum naan inna nag ñun buur naka ñun buur yàlla aw xay naa wax yu nañ ilayka jëm ci yow kama kem ni nga xamante ne aw xay naa noonu la ñu wax yoo woon ilaa nooxen ci yent yàlla noox alayhi salaatu wasalaam wan nabi yi na ak yenent yi nga xamante ne ñoom ñoo jiitoon min ba ñoom ñoo ñoo ñëwoon maanaam ñoo ñëwoon min baadi kon yeneen ci yàlla noox moom mooy nga xamante ne moom la yàlla njëkk yónni loolu moom mooy li mu lëkkaloo ak buntu wax maanaam mënoon naa wax ne wax yu rek waaye dafa wax ne moom mooy téereb wax yu la waaye tamit maanaam ak li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy euh, euh, maanaam tudd ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam jot na wax yu waaye yenent yàlla noox alayhi salaam jot na wax yu yeneen yenent yi ñëwoon ci diggante bi tamit jot nañ wax yu te it wax yu bi moom mooy li nga xamante ne foofu la nit ki di mën a jaar ngir dem ci yàlla maanaam yoonu yàlla kenn mënu caa jaar di dem ci yàlla fekk na yow ci sama xel maanaam ngay ngay sukkandikoo mbir mi dafa sukk dafa dafa tegu ci ay wax yu maanaam mooy alquraanu yàlla ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bi nga xam xamante ne moom mooy xadis bu njëkk bi laataa ñu koy jàng comme jàngum xadis la borom xam-xamu xadis yi dañuy baaxoo di jàng li ñuy tuddee al musalsal bil awaliya maanaam ngir ne euh, xadis boobu bu ko defee ñu njëkk koo dégg lool moom mooy tax ne bu ñuy jàng xadis yi ñu jàng euh, maanaam tasalsul gi daal di continuer maanaam série de récurrence bi daal di continuer maanaam kon bu boobaa tamit ñu ne ñun jaam yu baax jaam bu doyadi bi nga xam te ne yaakaaru ludul yërmande boroomam subhaanahu wa taala bi aji yaatu njéggale abu abdullah muhammad mustafa muhammadul mustafa mbuub al muhammadiya yi maa ngi solo al awwaliyat di ngir dundal sunna ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam jële ko ci faqih bu mag bi di xaadimul xadis muy fadilatu cheikh ahmad ibn darwish te noonu tamit laa ko déggee ëpp na juróom-ñaari at maanaam toll nag juróom-ñaari at ci tey jii ci euh, euh, euh, ci al allaamat al cheikh ali jumaa te moom mooy xadis bi nga xam ne moom lañ njëkk a déggee ci moom niki noonu solo nañ ko ci même càllale gi ci ki nga xamante ne moom mooy al imam euh, salahuddin atijaani euh, radiallahu taala anhu ne naka noonu euh, kon ñoom képp kenn ci ñoom nee na sama sang ak sama sëriñ alxaafis abdullah ibn muhammad as-siddiq al gumaari maanaam bi nga xam ne mi ngi génn àdduna 1413 ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na te lii moom mooy xadis bi ma njëkk déggee ci moom moom nee na dégg naa ci bahaauddin abu nasr alqaawqaji mu nga xamante ne mu ngi génn àdduna cent 1357 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booleem su ñu waxee ne génn na àdduna at sàngam ginnaaw gàddaay yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam moom nee na euh, abul mahasin alqawqaji moo ñu nettali moom mi génn àdduna 1305 te moom mooy xadis bi mu njëkk a moom te moom tamit Muhammad Abid As-Sindi moom la na mooy xadis bi mu njëkk a dégg ci moom moom mi génn àdduna 1257 te moom it nee na xadis bi ki netal mom moy hadith bu ndeuk degge ci mom waye momit it mu ne Abdurrahman ibnu sulayman al Ahdal mo ñu netali te mom ñu ngi génn àdduna 1250 mom neena tamit mom moy hadith bi ma ndeuk degge ci mom mom neena tamit am euh euh moy Amrullahi ibnu Abdul khaliq al Misjaaji mo ñu netali te neena moy hadith xadis bi ma njëkk a déggee mom moom moom nee na ibnu Aqila mom mi génn àdduna 1150 موم موي نانا موم مو ني نتالي تي موي حديث مو نك ديغي تي موم نانا موم نك احمد ابن محمد الدمياطي بيغا خامني موم مو غنا سيوي تي ابن عبد المغني موم مو ني نتالي موم ميغا خامنتاني نانا موم موي حديث موم مي ген ادنا 1117 موم موي حديث مو نك ديغي تي موم نانا موم نانا محمد عبد العزيز المنوفي مو ني نتالي تي موي حديث مو نك ديغي تي موم موم نانا ابو الخير ابن عاموس الرشدي te moom mu ngi génn àdduna 1002 euh, moom nee na moom mooy xadis bu ma njëkk déggee ci moom nee na cheikhul islam Zakaria Ansaari bi génn àdduna cent 926 euh, moom nee na moo ñu nettali te mooy xadis bu ma njëkk déggee ci moom nee na al imam al xaafis ahmad ibn hajar al asqalaani moo ñu nettali te mooy xadis bu ma njëkk déggee ci moom moom mi ngi génn àdduna 852 nee moy hadith bi mu njëkk déggee ci mom moom momit mom moom al moom zainuddin abul fadl zeynuddin rahim ibn al husayn al iraqi mom te mi ngi génn àdduna 526 te mom ne 826 plutôt nee mom moy hadith bi mu njëkk déggee ci mom nee mom moñu netal na abul fath muhammad ibn muhammad ibn ibrahim al maydumi mom moñu netal nee te mom moy hadith bi mu njëkk déggee ci mom nee abul faraj Abdul Latif ibn Abdul Mun'im al-Harrani moom mi nga xam ne mi ngi génn àdduna 672 moo ñu nettali nee na moom mooy xadis bi ma njëkk a déggee ci moom nee na moom Abul Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi mel na mooy imam bu siiw boobu moo ñu nettali moom mi ngi génn àdduna 597 nee na moom mooy xadis bi ma njëkk a déggee ci moom nag moom nag nee na Ismaïl ibn Abi Salih an-Naysaburi moo ñu nettali te moom mooy xadis bi ma njëkk a déggee ci moom. nee na moom moom abu hamid al bazaz mi nga xamante ne mu dañ koy wax alxashab tamit moom mooy mi génn àdduna 330 maanaam an-Naysaburi bi ñu wax sànq mi génn àdduna 470 imam ibnu jawzi mi génn àdduna 597 voilà nee kon alxashab nee na moom mooy xadis mu njëkk a ci moom moom it nee na abdurahman ibnu bishri ibnu bi génn bi nga xam mi ngi àdduna 260 nee na moo ñu nettali ci moom mooy xadis bi nga xam ne moom laa njëkk a déggee ci moom nee na Sufyaan ibnu Uyayna bi génn àdduna 198 moom nee moo ñu nettali nee na mu te moom mooy xadis bi nga xam ne moom laa njëkk déggee ci moom te fii la tasalsul gi yam maanaam ku nekk naan lii mooy li ma njëkk déggee ci moom fii la yam euh, waaye danañ gis ne dana continuer ci geneenu anam moom mooy ne abu euh, euh, abul qaabus mi nga xam te ne maanaam jaam bu abdullah ibn amr ibn euh, moom moom moom mi ngi jëlee ci abdullah ibn amr ibn al euh, bi nga xam ne mi génn àdduna 65 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa moom te abul qaabus muy nettali dafa ne bi nga xamante ne abdullah ibn amr moom la njëkk a nettalee Sham maanaam nga gis ne moom la njëkk a euh, nettalee Sham te amr ibn dinaar Euh, Amr ibn Dinar moom mi solo ci baayam nee na maanaam mi solo ci sëriñam moom nee na mi solo ci moom nee na euh, Abu Qaabus moom lañu njëkk a nettali Ibnu Uyayna daal moom la ñu njëkk a dicté maanaam moom la ñu euh, Abdul ibnu Dinar moom la njëkk a dicté te moom mooy kon boo ko xoolee daanaka càllale googu dafay gën a wéy te Abdullah ibnu Amr ibnu as radiyallahu taala anhuma nee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba mu jugee xajjatal wadaa xadis bi la njëkk a déggee ci moom te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne arrahimuuna yarhamuhum rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama subhaanallah mu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy yërëmaate ki nga xam ne mooy buur aju fees dellu ji yërmande dana leen yërëm kon nag yërëm leen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw suuf borom bi subhaanahu wa taala bi nga xamante ne moom mooy aju dellu ji yërmande moom dana leen yërëm xadis bi moom mooy xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis bii borom xam-xam xadis yi di njëkk a jàngale saa su nekk saa yoo xamante ne dañuy noose ay buntu xadis maanaam buntu njàngalem xadis maanaam su ko defee tasalsul gi mën a continuer maanaam su ko defee képp kenn mën koo soloo daan ne manit bii mooy bi ma njëkk a ci e, diw sàngam maanaam bu ko defee càllal càllale googu continuer e, dem ba e, maanaam ba mën a continuer te bu boobaa sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di continuer muy le bu rëy rëy koo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala joxu ko benn xeet kudul xeetu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax euh, xadis boobu kon moom mooy xadis al musalsal bil awwaliya borom subhaanahu wa taala daal di def ci yërmandeem ne bi muy ubbi bi muy ubbi alquraanam bi bismillahi rahmaani la ubbee maanaam muy baat kàddu goo xamante ne day wane ak yërmandeem waaye tamit tey moom la boroom xam-xam yi di ubbee seen téere yi waaye tamit noonu la kii nga xamante ne moom mooy euh, borom bi subhaanahu wa noonu la defee tamit boroom xam-xamu xadis yi tamit sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi ñu ciy njëkk a jàng loolu mu bokk ci kéemtaan yi nga xamante ne maanaam mu day wane ni àdduna bii ci yërmande la ko tabaxe tey diine ji ci yërmande lay dawe kon moom maanaam kon bu boobaa incha allah ñu dellu si waat ci imam al buxaari rahimahullah kon ginnaaw bi nga xamante ne moom la nosee buntu maanaam téere bi manam mune babu bad'ul wahyi manam wal bok wa wa qawli taala wa loolu waxoon nañ ko maanaam mu ne léegi muy ñëw ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu njëkk bi moy kayfa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam manam nakala manam wahyu bi njëkki ñewé ci yenent yàlla bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mune hadathana al-humaydi manam moy hadathana mune Euh, nettali ñu ne alxumaydi muy abdullah ibnu zubair la ko bindee alxumaydi abdullah ibnu zubair te moom mooy abdullah ibnu zubair ibnu isa ibnu abdullah ibnu usama ñoo dàkkantaram di abu bakar mooy alxumaydi di nga xam ne qurashi makki la di nga xam te ne euh, moom danaan euh, ànd ak imam an moom mooy ki nga xamante ne moom mooy waa makka maanaam mu tàmbalee ko comme ni al imam alxafiz ibnu xajar rahimahullahu taala ne bu ñu xoolee sëriñam bi mu njëkk indi maanaam mooy koo xamante ne màkka la dëkk ki ki ki gën a màgg ci sëriñam yi dëkk màkka kooku la njëkk solo soloo waxam te loolu noonu day wane ne li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne qaddimu qurayshan wala taqdimuhum tàmbalee leen ci quraysh waaye bu leen leen jiitu maanaam dee leen dee leen jiital quraysh waaye bu leen leen jiitu maanaam loolu moom daf koo doxal moom imam al buxaari rahimahullah maanaam ci euh, saxeexam bi nga xamante ne sëriñam boobu la njëkkee mu ne qaala xaddasanaa sufyaan te sufyan bi mom moy ibnu Uyayna moy sufyan ibnu Uyayna ibnu Abi Imraan al maymun al hilali mawlahum te moy Abu Muhammad al kufi mom moy dakantalam moy Abu Muhammad al kufi imam ibnu Uyayna rahimahullahu taala tamit Makka la dëkkoon mom la imam al Shafii radiyallahu anhu don wax naan bu imam Malik ak imam Sufyaan ibnu Uyayna kon hijaz bi yëpp mooy péninsule arabique bi yëpp kon xam-xam dootu fa mu ne kon moom tamit mu ne kon Sufyaan moo ñu nettali mu ne qaala xaddasanaa Yaxya ibnu Saïd al Ansaari te moom mooy Yaxya ibnu Saïd ibnu Qays ibnu Amr al Ansaari rahimahullah ñu koy dàkkantale Abu Saïd mu génn àdduna ci 143e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy tamit sëriñ bu mag a mag a mag Yaxya ibnu Saïd yi ñeent lañ daan ci ñëwaat insha allahu taala. ci benen jotay manam yahya ibn said al umawi yahya ibn said al ansari yahya ibn said al qattan manam qala akhbarani mu muhammad ibn mu ne nam na ma wax na ma maanaam mooy wax nañu li dox digeunte hadathana ak akhbarana mom moy hadathana mom moy serigne bi moy wax talibey di déglu waye bu fekete dafa ni akhbarana mom moy serigne bi ta kenn ci talibey moy jàng hadith bi ñuy déglu serigne bi wax maanaam sëriñ bi di déglu bu paree mu daal di waaw nii la maanaam loolu moom mooy axbarana waaye imam al buxaari nag rahimahullah moom deful teqantal diggante xaddasana ak axbarana moom dafa jàpp yépp ne benn la moo tax léeg-léeg mu jëfandikoo foo xamante ne xaddasana moo fa ne mu jëfandikoo fa axbarana euh, et vice versa te du problème ci moom maanaam mu ne kaala wax na ne axbarani net wax na ma muhammad ibn ibrahim at taymi mooy muhammad ibn te moom dàqantalam tamit moom mooy abu abdullah al qurashi at taymi ba nekk al madani maanaam mu boole ñaar yooyu boo xëy ne yaxya ibnu said al ansar moom madani la moom moom al ansaar yi moom ansaar yi la maanaam madani la madina la dëkkoon muhammad ibnu ibrahim at taymi màkka la nekkoon après jóge fa euh, nekk madina moom mu daal di déggee ci mu ne an alqamata ibnu waqaas maanaam mu daal al al laysi mooy alqamata ibnu waqaas ibnu mihsan al laysi al atwaari al madani moom it madina la dëkkoon ñu koy dàkkantalee abu yaxya moom mi ngi génn àdduna ci xilaafat abdul malik ibn marwan rahimahullahu taala moom mu daal di wax ne yaquulu mu ne samiatu dégg naa omar ibn alxataabi radiallahu taala anhu mooy sayidna omar ibn alxataab ibn nufay ibn nufayl ibn adi abdul uzza ابن رياح ابن عبد الله ابن قرطة ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي موي abu حفص امير muminina رضي الله تعالى عنه koy wax alfaaruq ki nga موي ne ديغنتي دغ اك تياخان موي امير المؤمنين ابو muminina abu xafs لا مو ген mu نياار فك اك نيت اك غيناو at يننتي صلى الله عليه sallallahu manam mom nak maanaam du daanaka du ku jàngale mom neena mom sa na wax ala mimbar manam kon degna muné kon alqamat ibn waqas allaysi rahimahullah muné dama deg sayyidina umar ibn khattab radiyallahu taala anhu di wax ci kaw minbar bi muné ne samiatu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muné manam maanaam ànd ak subhaanallah xadis bi ànd ak loolu yépp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam manam hadith bi ci sayyidina umar rek mom moko netali jule ko ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te Seydina Omar boobu Alqamat ibnu Waqaas bii rek moo ko nettali jëlee ko ci moom moom it Muhammad ibnu Ibrahima at-Taymi rek moo ko nettali jëlee ko ci moom moom it Yaxya ibnu Saïd al-Ansaari rek moo ko jëlee ci moom. ci ginnaaw moom nag ci la ko nag mbooloo mu baree baree baree bare jële ci moom ay téeméeri nit am na ñu wax ne ñaar téeméer ñenn ñi dem nañ sax bari juróom-ñaari téeméer par exemple al-Hafiz ibnu Hajar rahimahullah nee na nag ah juróom-ñaari téeméer nag bëri na ñu bare bare bare dal solo nañ ko ci mom ci yoon woowu te bokk na ci sufyan ibn uyayna bi rahimahullah mu ne kon seydna umar ibn khattab radiyallahu taala anhu neena dama dégg yent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne innama al amalu niyyati wa innama li kulli mriin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imraatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi mu ne dégg na mu ne mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne innama li am ba al amalu jafi binni yaati ci yéene yi dong laaju wa innama te li am ba des mooy li kullim ri ñëpp ñeel na gépp cam maanaam nit ku nekk ñeel na ko maa la nga xam te ne nawaa moom la yéene maanaam kon ñu gis ne xadis bi li muy wax mooy ni nit ñi kat ñëpp maanaam mbir yi jëf yëpp ci yéene yi lay aju maanaam te bu boobaa bu fekkonte ne nit ki maanaam képp ku am xel rek danañ la maanaam booy jëf sa jëf moom day faw day daal di am yéene waaye tamit yéene googu day nekk loo xam te ne day déterminant ci li nga xamante ne moom ngay am te moom mooy ruuxu jëf ji maanaam moo tax jëf yi ay jëm yu taxaw lañ waaye seen ruux nag moom mooy yéene ya nga xamante ne ñoom ñoo ciy ànd mu ne nag waaye képp kenn nag moo tax la nga yéene moom ngay am mu ne fa man képp koo xam ne kaanat nekk na hijratuhu ak gàddaayam ilaa duniyaa jëm ci àdduna yusibuhaa bu muy bu ko bu muy muy dal aw wala boog ilaa imra'atin jëm ci jigéen joo xam ne yangi ko waxaa koy takk mu ne bu boobaa fa hijratuhu la mu gàddaaye ak gàddaayam ilaa maa jëm na ca la nga xam ne maanaam mooy payu gàddaayam la muy am ca gàddaay ga ilaa maa jëm na ca la nga xam te ne haajara moom la gàddaay ilayhi jëm ca moom maanaam kon fii ñu gis ne eh, dañuy subhaanallah maanaam nga gis ne ñun eh, subhaanallah eh, ci ñu ngi ci weer wi nga xamante ne weeru gàddaay gi la muy muharram maanaam ci la gàddaay gi amee woon maanaam ñu gis ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon waxtaan te moom mooy xadis bi njëkk mooy xadis bi njëkk ñëw ci saxiix imaam Buxaari rahimahullahu taala bi wax ci walu gaday manam ngeen ne nit ki dafa wara a jëg jël tànkam dem gaday dem ci boromam subhanahu wa taala waaye fii dinañ gis ne parti bi nga xamne mom moy daan jek ñëw avant fa man kaanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi te mom moy fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulih fa hijratuhu ila allahi wa rasulih imam al buxaari indiwu ko ci bi mu njëkkee indi xadis bi indi na ko nag feneen waaye indiwu ko fii lu tax ngir dafay jàngale ne maanaam gàddaay gi nga xam ne moom lañu war a njëkkat maanaam nit ki euh, maanaam waruta jàpp ne moom fi mu toll dem na yegg na ba pare ma ngay dem ci yàlla déedéet daa war a gën a jàpp ne ah moom day dese na ko lu baree baree bari ci yoon wi ngir ne yoonu yàlla du jeex maanaam mu daal di jàpp warul nekk mbiru àdduna maanaam dafa war a njëkk a gàddaay lu bon laata muy euh, prétendre ne mi ngi nekk dem ci li ñuy xam ne moom mooy li gën a rafet li gën a sell mooy excellence bi maanaam kon foofu imam al-Bukhari rahimahullah mi ngi ñuy jàngal mi ngi maanaam ci xadis bi maanaam xadis bi daf ñuy jàngal ne yéene yi jëf yi ci yéene yi la aju xadis bi daf ñuy jàngal ne képp koo xamante ne nit ku nekk la nga yéene looy def rek na ko yéene te mbir mi yéene mooy teqale diggante léeg-léeg farata ak sunna ak yeneen ak yeneen waaye tamit daf ñuy jàngal ne booy yii booy booy gàddaay maanaam nanga nga gàddaay dem ci lu euh, dem ci lu baax ndax waaye ndax waaye lépp loo xamante ne gàddaay nga dem ca maanaam te donte yii ñu wax ni maanaam àdduna goo am maanaam alal joo am loolu bonut ni ki noonu jigéen jooy takk loolu bonul waaye nag bu boobaa na nga xam ne boo ci amul loola perte nga ndax képp kuy wuti ci dara da nga ko wut ngir yàlla boo amul boo ci wutul ngir yàlla perte nga loolu moom mooy li nga xamante ne moom la xadis bi di jàngale kon ñooñu maanaam euh, euh, kon euh, xadis xadis la boo xamante ne imaam al Buxaari soloo na ko rahmatullah alayhi ci xadis numéro 54 xadis numéro 2529 xadis numéro 3898 xadis numéro 5070 xadis numéro 6689 ak xadis numéro 6953. waaye ginnaaw gi ñeneen ñu dul moom tamit solo nañ ko ku mel ni imaam muslim rahimahullah hadith numéro 1907 imaam at-Tirmizi tamit solo na ko hadith numéro 1647 imaam an-Nasaa'i solo na ko ci ñetti bërëb hadith numéro 75 numéro 3437 ak 3794 imaam Abu Dawud hadith numéro 2201. Euh, niki noonu euh, imam ibnu maaja solo na ko ci mille xadis numéro 4227 ak ñeneen ak ñeneen solo nañ ko ku mel ne imam ahmad ibnu hambal solo na ko ci xadis numéro 168 ak xadis numéro 300 euh, kon loolu moom moo aj woon ci xadis bu njëkk bi ñu jàll kon ci ñaareelu bunt bi ñaareelu bunt bi mooy baabu sóoril waxi maanaam ginnaaw bi nga xamante ne moom la wax maanaam bu ñu xoolee subhaanallah maanaam da ngay gis ne xadis bu njëkk bi amul rapport ak wax waaye pourtant indi na ko ngir wane ne wax yu maanaam mbir mi yow boo bëggee jariñu ci wax yu faw sa yéene sell maanaam képp koo xamante ne yéeneem sellul ci jëm ci borom subhaanahu wa taala wax yu bi du ko jariñ maanaam moom mooy kon boo bëggee di jariñu ci alquran ak sunna sellalal sa yéene ba noppi nga gàddaay àdduna ak lépp loo xamante ne lu wóor-wóor loola ci loola maanaam mu daal di wax ne kon baabu buntu su waril wax yi maanaam me melo yi wax yu maanaam wax yi forme yi maanaam mooy forme yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci wax yi mu am yenn xeet ci forme euh, wax yu yi nga xamante ne moom la indi ci buntu bi mu ne xaddasana abdullah ibnu yusuf te moom mooy at-Tunisi moom mooy abdullah ibnu ñu koy dàkkatale abu muhammad mi ngi génn àdduna année 218 lu bare bari nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay soloo ci imam bu màgg bi rahimahullah di soloo ci moom muwattaw imam maanaam xadis yi nekk ci mu muwatta bu imaamu malik rahimahullah moo tax suñu xadis bii ñu nekk tamit moom maanaam ci Muwatta la nekk moo tax mu ne qaala xaddasanaa ma qaala axbaranaa Malik mu ne imam Malik moom xabaare nañu maanaam moom mooy dañ doon jàng ci kanam moom muy dégg maanaam imam Malik moom noonu la daan jàngalee moom mooy imam Malik nag moom daanaka jarta laaj mooy kan ndax mooy Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amr ibnu Amr ibnu Amr ibnu al-Xaaris Euh, rahimahullah al asbahi al humayri ñu koy wax abu abdullah al madani mooy borom xam-xam fikk bu mag boobu nga xamante ne mooy borom njiir bi 93e année la génn àdduna ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi ñenn ñi wax nañ ne 94 la maanaam màggaayam daanaka jarul wax daanaka jaruta di leeral ngir ne màggaayu imaamu malik ñépp xam nañ ko moom mooy euh, mu jële ko ci an mu ne an hisham ibnu urwa te moom mooy hisham ibnu urwata ابن الزبير ابن العوام ibn xuwaylid al asadi maanaam moom foofu la bokkee ak sayda kan xadija radiallahu taala anha radiallahu taala anha mooy kon hisham ibnu orwata ibnu zubair ibnu awaam radiallahu taala anhuma di waa kër sayidna orwata ibnu ibnu zubair di waa kër sayidna aboubacar tamit radiallahu taala anhu ngir ne seen maam mooy sayda mu ndax ngir ne maamam mooy sayyidat asma bint aboubacar radiallahu taala anhu as-siddiq moom kon moom naan hisham ibnu rawat dañ koy dàkkantala abul munzir am nañuy wax te ma dàkkantalam bokk na ci abu abdullah wala aboubacar bi ngi génn àdduna soixante ci unième année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wala boog ci la gane àdduna soixante unième bi léeg am na ñu ne soixantième année la gane àdduna waaye mi ngi génn àdduna cent quarante quatrième année am na ñu ne cent quarante cinquième am ñu na sax ñu ne cent quarante septième moom euh, kon euh, moom borom xam-xam yi tagg nañ ko te màggal nañ ko radiyallahu taala an abihi ñu jële ci baayam baayam mooy arwata ibnu zubair ibnu awam ibnu xuwaylid al qurashi al asadi moom ñu koy dàqantelee abu abdullah mooy al madani di waa madina bokkoon ci fuqaha u sabaa yi juróom-ñaari borom xam-xam fiq yu mag yi nga xam ne jamonoy taabii yi ñoo daan ubbee biir madinatu munawwara seen wax mooy wax lu ñu waxul rek loola du wax maanaam ñooñu ko mu moom nag ci jaal beenu xilaafa Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu ci la ganee àdduna mi ngi génn àdduna 94e année ginnaaw gàddaay yeneen bi ci li gën a wér wax nañ ne 99e la wax nañ ne 101e la wax nañ ne 91e euh, la. Euh, moom it boroom xam-xam yi nañ ko waaye bugguñoo guddal ci loola moom mu jële ko ci an aïchata ummul muminina radiyallahu taala anha moom mooy sayyidat aïchata bint abubakar as رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن أبي قحافة ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة موي مام يانتي بي صلى الله عليه وسلم مرته بوبو لا نبوك موك يانتي بي صلى الله عليه وسلم موي القرشيه التيميه المكيه المدنيه ني ام المؤمنين ني نانكو ام عبد الله دونت لي تي لي غنا وير امول وون دوم دي تود عبد الله واي داكان تام لا وون موي ام المؤمنين ني كوي واخ تاميت الحميره نده واخو ليغا خامن نين دنج كوي توخالي تي يانتي بي صلى الله عليه وسلم Euh, naan euh, waaw mu koy tuddee al xumayra ci lu dul benn du ñaar ci ay xadis donte ay xadis la yoo xam ne dañu daif moom ñu ngi génn àdduna cinquante septième année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wa sallam ak cinquante huitième année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam insha allahu taala ci manaaqi bi daa ñëw ci ay waxam moom mu nga xam ne ummul mu'minin na ndey way gëm ñu la radiyallahu taala anha radiyallahu yàlla na gërëm allah radi yàlla na anha ci moom nee na an alxaaris ibn hisham radiallahu anhu nee na kenn ci saxaaba yi la saala dafa laajoon rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko yaa rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kay fa ana naka yatiika la lay dikkale la lay dikkale al wax yu wax yu fa qaala moom yeneen rasulullahi daan ne moom wax ko rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy tontu bi ñu ko laajee ana naka la la wax yu bi di dikkale mu ne ahyaanan mu ne léeg-léeg yatii nii daf may dikkee misla mu mel ni salsalatil salsalatil jaras maanaam salsala mooy ba kàddu gu kawee kawe mbiib al jaras bu mbiib maanaam tey bu jëloon mbiib sifflet wala daal di koy ëf ci maanaam ci sax ci sa nopp bi ni mu naan maanaam noonu lu muy méttee léegi ni muy méttee mu ne noonu la daan méttee mu ne léeg-léeg noonu la mu ne wow wow moo tax boobu ashaddu alayya moo gën a tar ci man mu ne fa yusamu mu bu ko defee mu daal di tàqali ko am ni ak man maanaam bu demee ba nga xam ne métti bi dem na rek te fekk nag bu maanaam bu bu ma demee ba ma conscient nag waaytu fekk mokkal naa am ci lépp loo xam te ne aju na ci liñ ma doon wax. maanaam wax yu bu suy ñëw damay dégg day mel ni benn mbiib moom la ñu mbiib ci sama nopp bi bu ko defee ma dégg lu diis lu lu metti mu diis tar ci man waaye nag bu bu bu xaal boobu demee rek maanaam ma mokkal li nga xamante ne mooy message bi nga xam ne moom la moom la. Euh, loola àndaloon mu ne waa ahyaanan léeg-léeg tamit yatamassalu mu daal di melale liya man ñeel ma almalaku malaaka bi rajulan ci góor maanaam léeg-léeg malaaka bi daal di ñëw daal di jël jëmm joo xamante ne góor la maanaam te jëm yi nga xamante ne moom la ëpp li mu daan jël moom mooy jëmm sayidna Dexyata ibn Xalifata al Kalbi radiallahu taala anhu mooy ki nga xamante ne euh, moom moo gën a taaru ci saxaaba yi radiallahu taala moo tax maanaam jëmm jooju la daan jël comme ni nga xamante ne noonu la ko imam alxaafis as-suyuti rahimahullah waxee ci alfiyam ajmaluhum dihyatul jamilu jaa ala suratihi jibrilu maanaam ki nga xam ne moom mooy ci gën a rafet taaru nag ci saxaaba yi radiyallahu anhu moom mooy dihya bu taaru booba ndax ci jëmmam ci la sayyidina jibril radiyallahu taala alayhi salatu wasalaam daan faral di gën di ñëwee maanaam bu ko defee moom fa yukallimu nii mu daal di waxtaan ak mu daal di wax ak man fa aay bu ko defee ma daal di li nga xamante ne yaquulu moom la qaalat wax na Aïcha ne radiyallahu taala anha maanaam nga gis ne kon fii indi na fi ñaari xeet ci ñaari xeetu wax yu maanaam benn bi moom mooy comme mbiib boobu boobu moo gën a taat waaye ñaareel bi moom mooy ban moom mooy bi nga xamante ne moom euh, Seydina Jibril alayhi salaam day ñëw nekk nit maanaam yor jëmm nit maanaam daal di ñëw euh, li dañ ciy gisee tamit ne kon maanaam malaaka day soppaliku nit maanaam loolu xadis bi daf ñu koy jàngal bu ko defee muy wax ak man ne bu ko defee ma daal di mokkal li nga xam ne moom la wax قالت عائشة سيدت عائشة رضي الله تعالى عنها نينا نعم، ولقد جنان والله ولقد جنان وجنان لقد دق دق والله رأيته جسناكم من ينتي صلى الله عليه وسلم ينزل ميوات عليه تمام الوحي وحي وحي وسوي وقت مم في اليوم يتبس بو خبنتنا الشديد البرد ما نم أجي ترجي سدلا الشديد أجي ترجي البرد سدلا waye fa yaxsimu mu daal di dem ak wëlif ko wa inna te ma gis ne wallahi fekk xaalam mooy ne jabinahu ak jëwam la yatafassadu ma ngay tooy xepp araqan ngir euh, mu ngi sotti di dotti la yatafassadu ma ngay tooy di sotti di dotti araqan maanaam ngir ñaq maanaam di sotti ay ñaq maanaam loolu loolu nag li koy firndeel loolu day firndeel li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne inna sa nulqi alayka qawlan thaqila maanaam ñun day xel sëf nan wàccee ci yow maanaam kàddu goo xamante ne euh, kàddu gu kàddu gu diis diis la euh, xadis bi euh, imam al buxaari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci ñeenti bërëb mooy cent quinze xadis numéro 2661 mille xadis numéro 3215 xadis numéro 4141 mille xadis cent 4750 imaamu muslim rahimahullahu taala solo na ko xadis numéro 2333 ak xadis numéro deux deux mille sept cent soixante dix maanaam ci deux mille trois cent trente trois bi daf ko faa indi ñaari yoon ci ay riwaaya yu wuute. imaamu Maalik mi nga xamante ne moom xadis bi waxoon moom la ñu waroon a njëkkee sax ndax ci moom la xad la imaam al Buxaari rahimahullah solowee xadis bi ci càllaleem ci Muwatta gisoon nañ ko léegi muy xadis numéro cinq cent quarante deux la nekk euh, foofu imaam euh, at Eh, solo na hadis bi hadis xadis rahimahullah xadis numéro 3634 imam an-Nasa'i rahimahullah moom solo na ko ci xadis numéro 933 ak 934 niki noonu imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci ay bërëb yu chi ci ci chi ci ci ci ci xadis yu bari ci eh, ci musnadam rahimahullahu rahmatan waasia kon loolu moom mooy ñaareelu eh, hadis wala ñetteel ñaareelu xadis bi kon ñu daal ci ñetteel bi maanaam muy beneen bunt boo xam ne daf koy nose mu ne baabul buntoo ngi nii boo xamante ne daa am leneen lu muy leeral lu bokk tëg li nga xam maanaam ci wax yu ba tey lay wax maanaam mooy maanaam maanaam nga gis ne maanaam kon xadis bi ñu weesu dafay jàngale tamit ne maanaam képp koo xamante ne da jot maanaam ay eh, wax yu maanaam wala xam-xam boo tukkee ci borom bi su wa taala war nga ko fonk ngir ne dafa diis maanaam ngir ne dafa nekk lu rëy rëy dafa laaj ay teggin ak ay xorma ah niki noonu ñi nga xamante ne dañuy jot ay fatxu wala maanaam <coughs> yooyu tamit dafa nekk loo xamante ne euh, léeg-léeg day ñëwee ci anam gu diis waaw ah, loolu tamit ñu xam ko euh, bokk na ci fii mu ne baabul bunt la minal wax yi bokk na ci wax yi bi mooy ar ruya saaliha mooy ar ruya gént boo xam ne as saaliha te bay aji sell la xadis euh, bii maanaam bunt bi moom mooy bunt bi nga xamante ne dafay leeral beneen xeet ci xeetu wax yu yi nga xamante ne loolu waxu lolu waxu ñuko ci hadith bi ñu weesu manam kon hadith bi ñu weesu ñaari façon wax yu lañ wax motax imam al bukhari rahimahullah daal di indi beneen xadis boo xamante ne dafay leeral ne benen na euh euh benen xeetu wax yu te mom moy nit ki di gént fekk lamuy gént deug la mu nekk wax yu ci mom nekk révélation mu ne motax kon dañ cey xamé ne manam nit ki bu am na yu ay xam-xam yu ko borom bi subhaanahu wa laa di jox yoo xam te ne léeg-léeg day jaare ci gént euh, ci yoon maanaam ku nekk ci yoonu yàlla nag xam nga lii may wax maanaam mu ne kon xaddasanaa nettali nañu yaxya ibnu bukayr te moom mooy yaxya ibnu abdullah ibnu bukayr noonu la tudd maanaam ibnu bukayr maamam la moo laa dañ naan yaxya ibnu bukayr comme ni ñuy waxee yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam naan muhammad ibnu abdul muttalib maanaam loolu la ñuy wax maanaam mu ne bukayr maamam la moom yaxya ibnu abdullah ibnu bukayr al qurashi al maxzumi noonu la tudd euh, moom ñu koy dàkkantale abu zakaria mi ngi gën àdduna 155e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna 231 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne xaddasana soloo na maanaam nettali nañu allays mooy imam bu mag boobu nga xamante ne rahimahullah moom la ñu baree bari sàggane ay mbirum waaye imam allays muy lax allays ibnu saad ibnu abdurahman al ñu koy abu moom mooy moom al alfahmi mawlaahum waaye al misri la rahimahullahu taala mooy imam bu màgg màgg màgg nga xam ne imam ashafii radiallahu anhu nee na man day al lays imam lays bi al lays afqahu min malik walakin al xaswata li malik imam imam lays bi moo ëpp xam-xam malik de man bi mu bi mu waaye nag cër bi yàlla imam malik la ko jox maanaam cëru siiw ñu xam la kooku imam malik la ko jox waaye nag imam lays ko ëpp xam-xam mu ne an Uqayl te moom mooy Uqayl ibn Xaalid ibn Aqil ibn Uqayl al Ayli rahimahullah mooy Abu Xaalid al Qurashi maanaam Abu Xaalid mooy dàkkantam talam mi ngi génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xam ne mooy li gën a wér am na ñu ne cent quarante ñeem am na ñu ne cent quarante deuxième moom it borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tàgg nañ ko rëyal nañ ay biram moom mu jëlee ca an ibn an ibn shihabin moom mooy imam bu mag boobu xamante ne euh, moom mooy njëkk bind téere boo xamante ne téere la bu ñu daj <coughs> bu ñu dajalee xadis mu nekk téere bu bu ñu ñu taalif nii moo ko njëkk def moom mooy al imam az-zuhri mooy muhammad ibnu muslim ibnu ubaydillah ibnu abdullah ibnu shihab ibnu abdullah ibnu alxaaris ibnu zuhrata moo tax ñu naan ko az-Zuhri ibnu Zuhrata ibnu Kilaab ibnu Murrata ibnu Kaab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib maanaam muy mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi bokkee moom ci ndey ak ci baay mi ngi bokkee moom ci ndey ci maamam bi ñu tuddee Zuhrata ndax Aminata mooy doomu wax bi di doomi Zuhrata maanaam fii kii tamit maanaam mooy doomi ba pare kooku Zuhrata boobu di doomi Kilaab Kilaab euh, Kilaab moom mooy euh, maam ti bi sallallahu alayhi wa sallam di doomi Murrata maanaam kon moom bokk nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ndey ak ci bàyyi ñu koy dàkkantale Abu Bakar imam Az-Zuhri mi ngi gane àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ne cinquante-huitième la mi ngi génn àdduna cent vingt année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne cent vingt-quatrième la maanaam moom mu jëlee ci an Urwata ibnu Zubair waxoon nañ ko sànq Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam ah, radiyallahu taala anhu mu ne an aïshata te moom mooy ummul muminina nday moo sayyidat aïsha tam radiyallahu taala anha waxoon nañ ko sànq maanaam bu ñu xësee ba wax kenn ci benn jotaay bu ñu ko waxaat ummul muminina di nday way gëm ñi radiyallahu taala anha annaha qaalat nee na dafa wax ne awaluma njaal benn li nga xam ne bu di ah moom lañ tàmbale bii ci moom rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam minal wax ci ay wax mooy ar ruya muy gént as-saalihati bi nga xamante ne day sell day day set day laax day day day day rafet findaw naw mi ci nelaw maanaam da daan njëkk di gént maanaam ñi jékki-jékkiwul rek malaaka bi wàcc ci moom mu jékki-jékki rek naan ko iqra demeewut noonu maanaam ni mu demee mooy dafa njëkk commencé di gént juróom benn at <coughs> juróom benn weer plutôt <coughs> ñu koy dooga ñëw di ko maanaam di ko dooga euh, wax yu maanaam maanaam malaaka bi dooga ñëw mu ne fakkaana nekkoon na koo xam te ne laa yaraa doonul woon gis ru'yan ak gént illaa lu dul jaa at mu daal di dikke mis kemu falaq subaxi xaruk suba maanaam mooy leer nañ maanaam suba gi su xaree ni muy leere maanaam li mu daan gént ni mu koy gisee day gis gis bu leer bu xëyee suba mu nekk tamit dëgg goo xam te ne dëgg gu wér-wér la maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne kon moom loolu noonu la daan loolu la daan def moo tax loolu la njëkk a wax noonu lañ ko njëkk a wax yow su ma topp nag xob bi ba soppeef na soppaleef na moo tax imam Asharaani radiyallahu anhu dafay wax sax ne ki nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy rañaan maanaam njëkk naa rañaan ci gént ñett maanaam fanweeri yoon a ñett laataa muy doog a dem rañaan rañaan maanaam rañaan bii nii maanaam summa topp nag xub bi ba ñu daal di soppaloo ilay jëm ci moom alxalaawu ak wéet maanaam mooy dugg xalwa rek xalwa maanaam alxalaawu moom mooy xalwa rek maanaam da daan bëgg da daan dugg xalwa lu baree bari maanaam mu lool bokk na ci li nga xamante ne mooy yoonu yàlla maanaam yoonu yàlla képp ku ci nekk faaw léeg-léeg ngay beru di jaamu yàlla moo tax mu ne wakkaana nekkoon na koo xam ne yaxlu da daan beru bi xaari xiraa ci xunt wa ñuy wax xiraa maanaam boo xoolee xaaru xiraa ca Makka la ne waaw nekk xunt woo xamante ne bu jafee yegg la fu metti la moo tax sax loolu dong doy na kiimaan ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax na mu fa daan demee na mu fa daan dikkee mu ne nag fa yeta xannasu mu daan jaamu yàlla fii ca biir euh, maanaam lii mudraj la mudraj mooy loo xamante ne dama koo yokk ci xadis bi fekk bokku ci loolay mudraj maanaam tey bu fekkente ne damay expliquer dara maanaam damay wax nettali xadis waaye ma dem ba ci biir ma daal di cay yokk explication loolu mooy mudraj loola tax mu daal di wax wa huwa te moom mooy at taabud mooy jaamu yàlla lool nag imam az moo ko ci yokk voilà imam az-Zuhri mooy kan rahimahullah mooy kan moy ibnu shihab bi nek ci tialale bi ibnu shihab bi nga ci gis sank manam bi nga xam mo ne moo an oqaylan an ibnu shihab an urwata ibnu zubayr im kooku moy az-zuhri rahimahullah dafa bok ci ci niñ koy niñ koy xamé manam kon imam motax leg leg buñ az-zuhri yi nee na maanaam na ngeen xamné ibnu shihab bii la ñuy wax rahimahullah kon mom mu nga xamantene ne nee na moo maanaam mooy at mo kon yata manam yatahannasu mom moy lan mune moy mooy moy ak jaamu yàlla manam kon foofa dafa nekkon di jaamu yàlla motax fa yatahannasu batu manam ndax lan ndax batu yatahannasu mi ngi jugee ci alxinsa wa ka kom alquran wax wa kanu yusirruna ala alxinsi al azim ñoom day ñi ngi doon xuus ci bakkar bu mag bàkkaar yu mak manam hins kon moy bakkar manam nga gis ni kon fi da fay soxlu ñu firi ko parce que dem fo ngir def ci bakkar waaye dafa ne woon ngir moytandiku di daw bàkkaar maanaam ci jaamu yàlla gi muy jaamu yàlla maanaam loolu la baat boobu di tekk moo tax imam az-Zuhri yokk ci baat bi maanaam ngir firi wax jooju ngir bañ lënt lënt am mu ne wax woote moom mooy attaab bu du jaamu yàlla loolu kon mudraj la mu ne allah yàlla moom lan la daan nekk foofu nag ci xaaru Hiraa mu ne dafa daan jaamu yàlla allah yàlla yi ci ay guddi yoo xam ne zawaatal adad yi ay boroomi limu la maanaam muy guddi yu bari lay an yanza ci muy rocceeku di dellu maanaam yan yanza yan mu mooy rek yar joxo rek mooy muy dellu ila ali yi dem ci këram wa yatazawwadu daan na yóbbaloo nag li zalika ñeel loola maanaam daan na yóbbaloo daan na wutug yóbbal nag maanaam bu daan dem daanul dem loxoy neen da daan dem di wutug yóbbal su ma topp yar mu delluwaat ila xadija dem ci sayyidat xadija radiyallahu taala anha mun a fa yatazawwadu bu ko defee mu daal di koy mu daal di yóbbu lu wat li mis li xaalu kemuk lu mel noonu maanaam da daan ñibbi saa su dellu si wat ci kër gi ngir yóbbu wat lu mel noonu xataa mbete jaa awa mu dikkee ko alxaqu dëgg gi te moom mooy wax yu bi wowoo te moom fekk na ko booba fii xaar xeraa ma ngi ca xaaru xeraa fa jaa awa mu dikkee ko almalaku malaaka yi fa qaala mu ne ko iqra jàngal maanaam xissa bi moom daanaka xam na ko mooy bi li njëkk wàcc ci alquran maanaam moom ndax dafay leeral li nga xamante ne noonu la wax yu njëkkee am maanaam mu ne ko nag kon euh, euh, jàngal xaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa ana déet man bi indi aji jàng maanaam mooy loolu bokkul ci sama aada rek jàng bokkul ci sama aada waxu ko ne ko lam aqra jàng musuma jàng dana ko jàng ci boppam moo bokkul sama aada waxu ko ne ko du ma jàng itam dégg nga kon xaala euh, mu ne ko fa axadani xaala yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne fa axadani mu daal di may jàpp fa fa fa xattani mu daal di may bokk maanaam xatta mooy loolu mooy mu mu ma ci moom bàyyiwaat mu bokk maanaam moom mu jàpp ma tax ma ci boppam xatta mbete balaxa ma ma mu daal di jote min nii ci man tukkee ci man aljahda coono manaam ma daj ca coono bu baree bari sax maanaam ndax dafa voilà ni ma tafee noonu ci boppam ma daj ca coono ju baree baree bare loolu nag <coughs> bokk ko ngir métital ko wala ngir sonal ko comme ni ko ñenn ñi di waxe déedéet abadan sayyidina jibril alayhi salaatu wasalaam xam ne ni sangam mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk goog nga ko bokk comme ni cheikh abdas dabbaax radiallahu anhu wax mooy ne dafa am ay xam-xam yu bëree bëri yoo xamante ne moom la ko doon <coughs> moom la ko doon jox te ci seen bokkante googu doog la mënoon a jaare maanaam moo tax maanaam foofu la jaare maanaam ndax am na sax comme ni ñu doon wax awliya yu nga xamante ne dañ leen a tudde al aqtaab al aysawiyuna ñooñu bu ñu lay defar dañ lay bokk da ngay ñëw nga dugg ñu jël ñu bokk la bu ñu la bàyyee nga defar maanaam ñooñu loolu nga nga ñooñu loolu am na maanaam nga gis ne kon mbir mi buñ ko jàppee rek ci ne maanaam da ko doon dóor wala da ko doon kii asa subhaanallah haasha wa kalla sayyidina jibril alayhi salaam tegginam ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ëppante na ak loolu su ma topp nee na arsalani mu bàyyi ma maanaam mu yabal ma maanaam daf may bokk ba ba ma teg ca coono mu daan may bàyyi maanaam kon loolu day tekki ne tamit ne mbir mi léeg-léeg daj coono ci dara loolu euh, du lu négatif maanaam daj coono ci dara loolu du lu négatif lu léeg-léeg sax lu positif la mu ne fa qaala mu daan ne iqra jàngal qultu ma ni ko ma ana déet ak man bi xaari indi aji jàng faaxadani mu daal di may jàppat faxattani mu bokkaat ma assaaniya te ñaareel ba hatta mbete balaga mu daal di min ni ci man al coono summa top arsalani mu mu mu bàyyi waat ma fa qala arsalani mu bàyyi waat ma muy mu yabal ma ci suuf rek mooy mu bama rek voilà fa qaala mu daal di wax ne wa iqra jangal fa qultu man ko ana déet man bi qarin di aji jang fa akhadani mu jaat may jàppat faxattani mu bokkaat ma ak saalisata bay aji ba ñetteel ba manam motax ñet ñet ñet mbir la moy ternaire lolu ci spiritualité dafa bari lu muy xew moy ñet mbir mo xamne day xew xewat xewat moy ñet mo na arsalani mu daal may yabal fa qala mu ne ma mu bayyi ma mu ne léegi nag mu daal may jangal li nga xamantene mom moy ay yi ci alquran mu ne iqra bismi rabbika ladhi xalaqa xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbukal akram mu ne iqra jangal bismi rabbika ci sa tur borom alladhi bi nga xamne mo bind xalaqa moom moo bind al insaan min alaq ci loo xamante ne day day day aju day day takk mooy euh, mooy deret yoo xam ne day takk muy euh, iqra jàngal wa rabbuka ndax sa borom ak akram mooy ki nga xam ne mooy ki gën a tedd kon aay yi daf jàngal ne dañoo war a jàng maanaam mbir yi sàkku xam ci la bokk et que xam bii xam-xam la boo xamante ne dafa tukkee ci yeneen yi alayhimu salaatu wa salaam maanaam nit ki bu mu jàpp ne maanaam ay fatxoom ak ay kashfoom ay yooyu mën na koo may mu mën a xam sharia déedéet loolu amul. maanaam sharia moom faw dañ koy jàng moo tax mu ne ko iqra jàngal waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina jibril alayhi salaatu wasalaam moo ñëwoon di ko ko jàngal waaye ndax moom sayyidina jibril alayhi salaam mooy malaaka boobu nga xamante ne boo xoolee boobu ba léegi dañ naan almalaku malaaka bi maanaam ñu koy ñu koy taarif maanaam mu nekk article défini bu ñu ciy def loolu day tegtale ne malaaka boobu benn malaaka mooy malaaka bi nga xamante ne moom la ñu yónnee woon mu jógee mooy yent yàlla nuux alayhi salaatu salaam kañu wax ñu woon te moom ak moy malaka bi rek mo dan wax ni mom moy aminul wahyi mom moy aminul wahyi mom ki ñu wolu ngir muy indi wax yu bi mom mom moom mi nga xamantene mom kon njàng mom nga xamantene mom la ko jàngal manam xam-xam bob nga xamantene mom la borom bi subhaanahu wa taala jox yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam manam fatxom bob mom rek mo mana mo ñu mana xamal sharia lol mom motax comme ni ko non non la ko wa nazzala ilayka alkitaaba wa nazzala ilayka zikra li tubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim moom moo wàccee ci yow ak zikr te moom mooy xam-xamu alquran bay tax nga mën a jàng sunna nga mën a nga mën a xam ni ñuy doxalee diine ji li tubayyina bu ko defee nga leeralal linnaasi ñeen nit ñi maa alquran ji nga xam ne nuzzila ilayhim wàcce nañ ko ci ñoom kon loolu moom mooy kon xalaqal insaana min mu mooy mooy kon euh, ci turu borom bi loolu tamit day wane ne xam-xam dañ ko war a jàng ak lépp lu mën a doon waaye nag xam-xam bi nga xamante ni dëgg-dëgg moo tax ñuy wax mooy xam-xam bi lay jëme ci borom bi subhaanahu wa taala te lépp lenn war nga cee mën a jànge maanaam nga xam ne ne bi muy wax bindu doomu aadama ngir ne at ah doomu aadama moom ci boppam mooy kawnu bi mooy univers bi mooy univers bu mat bi kon nag mu ne na nga jàng ndax sa borom moom mooy ki ki ki ki nga xamante ne moom moo matal ci teranga kon nag mu ne ba mu ko waxee loolu fa rajaa mu daal di dellu mu daal di dellu bi ha ci wax ci wax ci ci foofa ci loola rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yarjufu euh, muy muy muy mu yëngatu fu aadoo xolam maanaam mu tiit voilà ndax maanaam lii du koy dóog lool tamit maanaam euh, xala mu daal di dugg zammiluuni ay waay sàng leen ma zammiluuni ay waay sàng leen ma mu ne fa zammalu bu ko defee ñu def koy sàng xattaa <coughs> mbete za ba mu daal di dem anhu wëllif ko ar rawu tiitaange googa فقال مراد وخني خديجه نال سيدت خديجه رضي الله عنها من واخبرها مراد كوي خبار الخبر خبر بي مراد كوي واخ لا خيو نكو اه من داي نانغام اك نانغام مو خيو با بارا دار فك بام كوكو وخه با بارا نك دان نكو واخبرها فك خبار نكو الخبر خبر بي با بارا منكو لقد دغ دغ واتناني خشيت رجلنا على نفسي سابو فقالت دغلو لين ليغا خامني موم لاي واخ سيدت خديجه رضي الله تعالى عنها نكو kallaa jàjjul wallaahi waat naa ci yàlla loolu mukk mukk kallaa bu mukk du bu ragal ci sa bopp dara mu ne ko maa yux ziika giñ naa mu ne mu ne wallaahi waat naa ci yàlla ne maa yux ziika du la gàcceel mukk allah bur yàlla abadan mukk mukk abadan innaka giñ naa ne yow li li am li wér bu wóor mooy yow kat la tasilu da ngay jokk arrahima euh, da ngay da ngay da ngay da ngay jokk mbokk maanaam yow da ngay jokk mbokk maanaam euh, da def sax koo xamante ne day ñëwul ci yow doo doo woowu la déggu la joxu la faalewu la nga dem jokk ko watax milu te da ngay yanu alkalla coono yi maanaam li nga xamante ne moom la nit ñi war a coono yow nga dem yanu ko jël ay responsabilité tegoo ko te fekk képp kenn mën koo def ku nekk bàyyi ko waaye yow nga dem yanu ko watax si wute da ngay fàggu almaaduma li amut maanaam moom mooy nit ki day ñëw wahla ay aajom donte yow amoo ko ngaɗa dem fagguji ko fexe ko am ko indir ko ko wa taxrite dangay teral addayfa gan wa tuinute dangay xettali waate ala nawaibil xaq ci mbir yi wër wërlooti muy dëgg maanaam moom mooy mooy mooy coonoy adduna rek liñ naan nawaibil xaq mooy adduna bi événement yi fi xew te te te ga te gaaral nit ñi rek loolu mu daal di koy wax nag maanaam lii ay kaddu la yoo xamante ne subhanallah borom bi subhaanahu wa taala du gàcceel mukk koo xamante ne ci yii muy ay jikkoom loolu moom moo tax tamit moom moo lay wan ne yoonu yàlla dafa laaj d'abord jikko yu rafet te moom mooy jikko yii nit ki jikko woo ko nii lay royee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dafa am yoo xamante ne faw nga meloo maanaam boo bëggee ci yoonu yàlla lii nag moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ci jiitu mooy nga meloo jikko yu rafet yii maanaam ne képp kuy sàkku xam-xam ndax xam nga wax nañ ne iqra la ko wax waaye kuy sàkku xam-xam dafa am ay teggin yoo xam te ne moom la war am te bokk na ci teggin yi moom mooy jikko jikko yu rafet yi mu ne ko euh, kon yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yow yow da ngay da ngay da ngay jokk mbokk da ngay yanu coono nit ñi da ngay fàgg loo xamante ne amut da teral gan te da dimbali nit ñi ci seen ci seen maanaam yi leen di gaaral ci àdduna yii leen di dal mu nag mu ne nag fan talaqat mu daal di dem bi ci moom xadijat radiyallahu taala anha maanaam sayyidat Xadija radiyallahu anha dem xattaa mbéta atal mu daal dikki bi ci moom Waraqata ibnu Nawfal mu daal di ñëw Waraqata ibnu Nawfal ibnu Asad ibnu Abdul Uzza muy kan muy ibnu ammi Xadija di doomu baytaxu sayyidat Xadija radiyallahu anha wa kaanate nekkoon na koo xam ne imra an ab cam la soo xamante ne maanaam waaye la joo xamante ne te nasara dafa nekkoon nasaraan fil jaahiliyati ci jamonoy jaahiliya mooy jamonoy ceddo ga bi lislaam ñëwagul mooy jaahiliya wakaanate nekkoon na koo xamante ne moom yaktubu daan na bind alkitaaba téere bi al abraani yi ci làkk abraani yi mooy mooy hébreu fa yaktubu mu daal di bind minal injiil ci injiil bil abraani ya ci làkk booba mooy abraani ya macha allah nga xam naa li nga xam te ne saa soob na allah bu yàlla an yaktuba ci mu bind ko moom mooy kon moom injiil mooy évangile daf ko daan bind ci abraani ya maanaam daan ko jàng. wakaana nekkoon na tamit koo xam ne jamono jooju yenent mu doon yenent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidat Khadija radiyallahu anha doon indi yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom nekkoon na koo xam ne cheikhan ab màggat la boo xam ne kabiran bu mag la xat dëgg-dëgg sax am ya bëtam yi dafa sëggoon maanaam dafa selmaxa fa qaalat mu daal di wax la woo ñeel ko Khadija sayyidat Khadija radiyallahu anha ne ko yab na am e yow sama doom ak bay tax gi maanaam bay tax mooy ku bokk ak sa baay baay mooy pa mooy góor gu bokk ak sa baay baay koo koy bay tax mu ne ko isma déggal min ibn axika ci sa doomu mbokk gi fa qaala la woo mu ne ko waraqa sayda waraqa ne ko saydna waraqa ne ko yabna axiya yow sama mbokk maada tara ana lan nga gis fa axbarahu mu xabaare ko rasulullahi ndawal yàlla bi sallallahu la nga xamante ne raa gis na ko fa qaala nee na mu daal di wax la woo ñeel ko waraqa maanaam waraqa daan ne ko saydu waraqa saydu ne ko hada loolu de naa naamuusu na naamuus mooy boroom secret boroom boroom mbóot allazi bi nga xamante ne nazala moom la moom la daan wa moom la wàcc allahu bu yàlla ala muusa ci yent yàlla muusa alayhi salaam maanaam nga gis ne kon même yeneen même malaaka bi la maanaam moom daf koo xàmmee bi mu waxee li xew rek ci leen ko oho kooku moom mooy kooku mooy boroom secret bu mag bi nga xamante ne moom mooy euh, moo daan indil mbir mi yent yàlla Moussa maanaam moo tax borom secret bu mag a mag maanaam ki xam ne moom la ñu dénk secret yu mag yee mag a mag kooku la ñuy wax naamuus maanaam jaasuus mooy ki nga xamante ne mooy ciy raju maanaam mooy ki nga xamante ne day ñëw di euh, di di comme fii nii bu ñu toogoon maanaam koo xam ne day mooy agent secret kooku mooy jaasuus voilà xaasuus mooy comme naan fataxassasu min yusufa wa ixwati wa wa axihi voilà fataxassasu min yusufa wa axihi manam moy khasus khasus moy gi nga xamantene day dem ngir jël ay information deug nga kon nga gis ne khasus jasus namus ño bokk ah, ño bokk fi ño bokk ay ay ay mbir ñom ñep wala mbirum secret la mo ne kon kooku mom moy ki nga xamantene mom moy ki yor secret yu mag yi manam namus nak kenn du ko wax ku yor ben secret wala ñaar wala secret yu ndaw dedet lu re lu am solo lu meuna tukkal aduna wala lu meuna defar aduna ku yor secret bu toll wax mu yàlla yaa laytani ak a neexoon man fii haa ma nekk ci jamono jii nga xamante ne moom la ñu yónni ci yow jazaan ma nekk ndaw lu dëgër mooy jazaan ma nekk ndaw lu dëgër laytani ak a neexoon waaye akunu ma nekk xayyan di aji dundu is jamono ja nga xam ne yuxrijuka dana la génne xaw mu ko sew nit fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam ne awa muxrijiya hum awa ndax muxrijiya aji génne lañu aw aji génne ma lañ maanaam ndax ñoom daañ ma génnee gi maanaam loola ba mu ko waxee yent bi saa sax dana mais dañ na dinañ ma mës a génnee kon xaala yan maanaam euh, euh, Seydina Waraqa ne xaala mu ne ko naam waaw radiyallahu anhu mu ne ko waaw naam waaw lam yàtti ndax musul dikkee rajulun benn waay xatt mukk maanaam mukk bi misli ci kemuk maam li nga xamante ne ji te nga dikkee bi ci moom illaa lu dul awdiya ñu noonoo ko wa in yudrikani wa in yudrikani naa la ko looy def ci àll bi yow kese waxoon naa la ko yow fi toll yow yaa jommi boo jommee yaa ko tey yow sa yaa ko def voilà yooyu waaye nag xanaa waaye def noonu de dafa dalal xelam ñëw jàppale ko allah allah sayyidat Xadija radiyallahu anha loolu defal na ko def na ko dégg nga radiyallahu taala anha <coughs> mu daal di ñëw kon moom sayyidat Khadija radiyallahu taala anha bi nga xamante ne moom la yéen moom moom bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu euh, euh, lii nga xamante ne na xaarit ñu génne ko ci alalam ak ay ak ak këram ak dëkkam ak maanaam nañ na xaar daal ñu teg ko ay maanaam mu daj ay nattu na xaar loolu ngir ne yoon wi ci boppam moo làmboo ak loola loolu nag ngir ne eh, li naa Seydina Waraka wax radiyallahu anhu li mu wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci eh, ne ko daañ la génne ndax kenn du indi lu mel ni lii ngi indi loolu daañ ko noonu maanaam loolu moom moo tax wax lii dañ ciy jàngee ni wax dëgg ak wax li nga xam ne moom mooy li alquran jàngale ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bul ci xaar ndax gars yi daañ kontaan wala déet daañ nangu wala duñu nangu parce que loolu boo dee xaar doo wax mukk waaw loolu moom jamais te ndax képp ku ko def ñu noonoo la loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li am léegi gannaaw bi nga xamante ne moom la wax ne nag képp ku ko def mu ne mu ne ko bu ma boo ma fekkee dinaa la dimbali loolu day wane ni Seydina Waraqa radiyallahu anhu mooy góor gi njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, moom mooy góor gi njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu waaye lënt lënt bi ñuy wax naan Seydina bakar la radiyallahu taala anhu dafa fekk ne mooy Seydina Aboubacar radiyallahu anhu mooy ki njëkk a gëm bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi nag woote na maanaam wala boog bi nga xamante ne wàcce nañ ci moom ne ko léegi nag waareen wala yu mel noonu voilà loolu moom yu naa Aboubacar radiyallahu anhu mooy ki njëkk a gëm léegi mu ne qaala ibnu Shihab lii dañ koo def ñeenteelu xadis waaye ci euh, xadis bële la jokku waaye fii imam ibnu Shihab waxoon nañ ko sànq mooy az-Zuhri rahimahullah nga xamante ne muy sëriñu ñoom imam voilà moom moom kon moom mooy al imam ibn shihab rahimahullah dafa wax ni da dafa indiwaat benen wax bo xamante ne ci même càllale gële la ko imam al bukhari rahimahullah indee moo tax waxaatul càllale gu njëkk gi moo tax mu ne wa qaala ibn shihab maanaam mooy def li mu jëlee ci yaxya ibn bukhair mu jëlee ci ko allays mu jëlee ko ci aqayl mu jëlee ko ci ibnu shihab rahimahullah waaye bi pa Euh, euh, al imam az-Zuhri rahimahullah jëlewu ko ci Urwata ibnu Zubayr radiyallahu taala anhuma waaye euh, daf ko jële ci Abu Salama mu ne qaala wa axbarani xabaare na ma Abu Salamata ibnu Abdurrahman moom mooy Abu Salamata ibnu Abdurrahman ibnu Awf ibnu mooy ibnu mooy Abdurrahman ibnu ibnu Awf mel na bi nga xam ne sahaaba yent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci fukk ñi nga xamante ne ñooñu lañ bégalee àjjana mooy fukk sahaaba yu mag yi radiyallahu anhu doomam jii di Abu Salama maanaam ibnu abdurahman ibnu awf bokk wax nañ ne bokk na ci fuqahaa saba yi tamit juróom-ñaari borom xam-xam fiq ca waa ca waa madina moom abu salama la moom mooy euh, dàkkan talam euh, mi ngi génn àdduna mi ngi gane àdduna ci euh, ñaar fukk ak nangam ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna 93 80 ñi ne nee nañ 94 comme maanaam mooy at bi ñoom imam lays imam maalik gane àdduna ñoom ci lañ génn ci la génn àdduna mooy kon abu salamata abdurahman eh, ibn ibn ibn abdurahman ibn awf radiallahu taala anhu moom nee na an na jabir ibn abdullah te moom mooy jabir ibn abdullah al ansari radiallahu taala mooy jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram ah mooy moom ak papam papam ku nekk xam na moom moo njëkk génn àdduna fële ca moom la ñu moom moo moom la moom moom moo yoroon eh, moo rumaat moo nekkoon chefu ñi daan yor xeet yi ca ca Uhud xare Uhud moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo fa génnoon àdduna moom mu seydna jaab jaabir ibn abdullah kon mu al ansaari radiallahu taala anhu ah, moom nga xam ne dàkkante la mooy abu abdullah wax nañ ne abu abdurahman tam nee nañ abu muhammad mi ngi gane àdduna 68e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 72 am nañu wax leneen ah, donc al ansaari moom xasraj yi la assulami al madani borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tagg nañ ko màggal nañ ko ngir ne dafa bokk sax ci ñi nga xam ne ñoom ñooy juróom-ñaar ñi ëpp lu ñu solo xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon jaabir ibn abdullah al ansari radiallahu taala anhu qaala nee na maanaam fii dañ ci yokk annahoo maanaam annahoo qaala noonu la ñuy jàngee xadis maanaam nee na waxu woote moom yu xaddisu mi ngi jàngale mi ngi mi ngi wax xadis mi ngi mi ngi nettali an fatrati mi ngi waxtaanee an fatratil waxyi ci wax waxyu bi fa qaala mu ne fii xadis yi maanaam boo xoolee wàll gi li tax imam al-Bukhari indi ko hmm. rahimahullah mooy ngir ne maanaam wax wi comme dafa dogoon maanaam xadis bële moom fee la yam waaye xadis bii day yeggale wax ji nettali mbir mi maanaam moo tax mu ne woo muy nettali fa qaala mu ne fii xadis ne bay naa ana mu bay naa diggante bi nga xam ne ana man am si maa ngi dox is fekk rek sam waaw waa waaw maa ngi dégg sawtaan baat mi na samaay bu tukkee ci asamaan hmm. fa arat farafaatu ma daal di yëkkati ba fari sama gis-gis fa isa rek ma daal di dajeeg almalaku malaaka bi allazi bi nga xam ne jaa ani moo ma dikke woon bi xeraa ca xaar xeraa jaalisul mu toog alal kursi yi ci ci kaw euh, ci kaw kursi yi maanaam maam ci ab chaise bay na samaa diggante asamaan wala ardi ak suuf si fa ru'ibtu ma daal di tiit minhu ci moom maanaam ma daal di koy ragal ma daal di tiit fa rajaatu ma daal di dellu fa qultu ma ne waay waay zammiluuni waay waaye sàng leen ma fa anzala mu daal di wàcce allahu bur yàlla yaa taala ji kawe ji yaa ayyuhal muddassir qum fa anzir ila qawlihi war ba ci wax ji bi mu naan warul jafax jur mooy yaa ayyuhal muzammil yaa ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahir warul jafax jur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir waaye ba ci fax jur maanaam kon mu ne yaa ayyuhal muddassir yow mi nga xamante ne yow yaay kii sol yére yi ba fees nag maanaam ndax muzammil moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki sangu sangu yére yi nga xamante ne ñoo yére waaye yére yooyu du ay yére rek de yére yi sellte la ak yére yi maanaam maqaama ak yére mbaax ak yére teranga loolu moom yére yooyu la waaye ko moo tax borom subhaanahu wa taala ne ko yaa yor muzammil booba daal di koy wax nag daal di jox ay orientation yooyu nag mooy yi nekk ci sourate muzammil waaye fii daf ni ko mu yor mudassir yow mi sol yére yi nag yow nag léegi mat nga dem nga ba mat matal nga sa léegi nag bi dem nga moo tax yoonu yàlla noonu la tamit maanaam faaw nga am foo jaar maanaam faaw nga njëkk a nekk taalibe laataa ngay nekku sëriñ doo jékki-jékki rek toog rek sol sa grand bu toog ni wax ne gaa yi man sëriñ laa léegi nangam indi leen addiye yi wala nangam dama leen di yóbbu ci yàlla wala yooyu fekk doo leen mënal dara parce que yow ci sa jëmmi bopp defaru ko. moo tax bi mu ne ko defarul ba pare yow fa moo tax mu ne ko zammilu nii moom mi ne ko eh, yow nga xam ne yow yaa aji sàngu ah nga xam ne yaa ngi sàngoon ak ay yéer yi sellate ak mbaax mu ne xubil layla illa qalila jugal guddi yi ba mu des du néew maam nga defar maanaam mooy soobul ci yoonu yàlla ngay jaamu yàlla del zikkar del julli del naafila del et cetera del jàng alquran wa rattilil qur'ana tartila del jàng alquran et cetera maanaam ko loolu nga defaru ba pare yow yow nga defaru nga xamante ne nga concentré wu ci sa bopp ba pare soo paree nag mu ne ko nag léegi comme defaru nga nag léegi ba sol nga yére yi nga xam ne ñooy yére yu mat yi te mooy yére yu mboolem turu yàlla yi ak meloom yi loolu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam solo ko mu ne ko nag qum fa maanaam loolu yëpp dañ koy yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf cee jaar ci zaahir ngir jàngal bi waaye ca baatin moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam matoon na loolu bu yàgg mu ne ko kon nag qum jugal fa anzir nga waaraate léegi nag mën ngaa waaraate woo nit ñi war wa rabbaka sa borom nag fa kabbir màggal ko ba ñëpp xam ne moom rek nga màggal wa bakk si yére yi fa tahir laabal ko te mooy sa jikko yi sa jikko yi nay gën di sell na koy gën di seet sellal ndax maanaam laab na waaye deel gën di laabal maanaam mooy ne ni nga mel nii deel gën di perfectionné saa su maanaam bul ne rek léegi mat naa rek jeex na déedéet deel gën di perfectionné wu loolu moom moo tax ki nga xam ne moo yegg ci yàlla dëgg-dëgg day jàpp ne moom yëggul fenn day jàpp ne demagut day jàpp ne lu bari manqué na ko ndax yoon wi du jeex wa am na ilaa rabbikal muntaha mu ne ko war ruj war ruj lépp luy sobe fahjur gàddaay ko maanaam mooy nga gis ne kon gàddaay gi day dellu si waat ba tey maanaam mooy gis nga xadis ba mu njëkkee fa man kaanat hijratuhu maanaam day dellu si waat mooy gàddaay lépp loo xamante ne du yàlla lépp loo xamante ne du yàlla rek gàddaay ko ndax sobe la loolu ci ngay mën a laaboo laab ci ndox moom nga xam ne mooy maa ul xay bi mooy tattaxar bi maa ul xay bi in kunta za maanaam mooy laabu ci ndoxum xay boobu te moom mooy ndoxum alquran ak te moom mooy lan nga sell ba nga xamante ne sa sa yow amul benn dara benn particule benn atome buy amati ci yow dara lu dul ne wala dara luy amati ci yow ca lu dul yàlla mu ne fa xamiya euh, mu ne fa xamiya mu ne la ko dalee ci jamono jooja nag fa xamiya nag mu daal di bari di dikk al wax euh, lu baree bari al wax yu wax yu mm. wata taabaa mu toftaloo mu ne xadis bi taabaaho taabaaho maanaam di benn eh, wax la ci xam-xamu xadis maanaam buñ naan naan taabaaho Euh, maanaam mooy lii la ñu mutaabaa mutaabaa mooy tey bu fekkente ne dafa am benn waay boo xam ne dafa soloo ci sëriñam même xadis maanaam même xadis bi ñaari nit dañ koo soloo ci benn sëriñ yow nga soloo ko fenn kese dañuy xool ndax amul keneen ku ko soloo ci même sëriñ bi loolu mooy mutaabaa bu dee ci saxaaba la nag kooku shawaahid lañ leen di tuddee maanaam mushahada la maanaam euh, dañ naan lii ay shaahid am na shaahid maanaam am na lu ko seere mooy euh, beneen xadis léegi bu boobaa mu daal di wax ne kon taaba awoo topp na ci xadis mooy abdullah ibnu yusuf te waxoon nañ ko sànq mooy at-Tinnisi yi mooy ki njëkk a wax ah, abdullah ibnu yusuf at yi mooy xadis bi ñu jëlee ci Muwatta ah. imam Maalik ah, waxoon nañ ko léegi mu ne waa abu waa abu saalih te abu saalih mooy abdullah ibnu saalih ibnu muhammad ibnu muslim al-Juhani al-Misri yi mooy abu saalih moom mooy ki daan bindal imam Lays ibnu Sa'd rahimahullah maanaam imam Lays bi ñu doon wax moom moo ko daan bindal abu saaleh bii la moo tax abdullah ibnu yusuf ak abu saaleh même xadis bi ñoom soloo nañ ko waaye kon ci kan lañ ko jële ci imam lays ndax maanaam ñoom ay taalibi imam lays lañ duñu taalibi keneen ci ñoom maanaam ci génération boobu la maanaam ñoom génération ñoom sëriñu imamul buxaari yi la rahimahullah mu ne wa taabaaho te topp na ko moom tamit ba tey maanaam xadis bi soloo na ko kan hilaal ibn raddaad ah hilaal ibnu raddaat mooy hilaal ibnu raddaat ak taa i dañuy wax tamit alkinaani alchaami moom tamit maanaam alxaafis ibnu xajar raximahullahu taala nee na maqbul ku ñu nangu ay waxam nañ imam azzuhali nee na hilaal ibnu raddaat ak taa i maanaam nekk na koo xamante ne tamit maanaam ay càllaleem maanaam dañ koy nangu waxam dañ koy jàpp maanaam kon moom nga gis ne imaamul Buxaari léegi ñu indi ñi gën a dëgër après mu teg ci ñeneen maanaam gis nga ñi mu indi ki xadis bi bi mu ko indee euh, jële ko maanaam bii nga xamante ne maanaam mooy bi jóge ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi euh, ak euh, Abu Saleh ak ak Yaxya ibnu Bukayr ñoom ñett ñi ñoom ñoo ko soloo ci imam Lays ibnu Sa'd kon xadis bi ñett ñoo ko soloo ci imam Lays ibnu Sa'd saddaat maanaam imam lay soloo na ko moom tamit kon ci euh, hilaal ibn raddaat euh, ak ci oqayl maanaam ci ñaar la ko solo ci oqayl ak ci hilaal ibn raddaat ak mu ne ani zuhri yi mu ne ani zuhri euh, ñu jële ko ci imam az zuhri mu ne wa yunus te mooy yunus hmm? ibn yazid ibn abi najjar euh, mi ngi génn àdduna 159 mi mu année ginnaaw euh, euh, mamar te moom mamar ibn rashid ngi génn àdduna 150 année ginnaaw yonent bi ginnaaw yonent gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa kon moom nee na ba waariduhu maanaam moom mooy put gi maanaam bi naan kii tiit maanaam xam nga euh, kii tiit maanaam Maamar Maamar ibn maam Yunus bi ñoom fan ci ci ban génération lañ bokk ñoom génération ñoom imam Malik lañ bokk ñoom imam Lays maanaam kon ñoom tamit soloo nañ bi ci yoonu imam Lays non non ci kat ci ñoom voilà ci ñoom Zuhri waaye euh, non Oqayl Oqayl ci Oqayl ñu Zuhri waaye ñoom bawaariduhu lañ wax waaw maanaam mooy ne. yentib sa saa dafa dafa tiitoon manam fim nan yar ju fufu ada yar ju fufu ada wala fi nak bawarido lañ wax yar ju fufu bawarido la sen cialale bawadiru wana bawadiru bawaadiruhu plurielu badira wala moy moy fi nit ki buy jek jek fi di fii di bu tite nga gis fi nan waaw lolu moy bawadiru na kon euh, ñu yam fofu la